Euh, Boun Dionne génn na kii euh, Aliou Ngouille Ndiaye génn na euh, kii waa ji nu mu tuddati waa ji moom daana mën naa ko xaw a tuddee comédien Mame Boye Diao <laughs> ne ay parrainage am xaw ma loolu ñooñu noo leen gisee jàpp nga ne ñoom ba léegi ci kii Macky la wala yow dem gëmi boo ko noonu ñoom ñëpp mburoog fëriñ lañ hmm. munoo yoree réew mi ñaari mandat hmm. sëñ Saliou hmm. réew mi nit ñi xiif mhm. mar sonn mhm. ay junni junni sénégalais faatu ci géej gi tey mhm. nga nekk responsable te ubbiwuñ ci benn dossier événement mars yi fi jaaroon li faatu ba léegi dossier yi ñi ñu taxañ sànni benn enquête mané wuñ ko ci tey baykat yu ren problème mu jiwu am na problème mu engrais am na problème mu suuf am na réew mi fépp di jax say doom di gàddaay di dem xanaa xam ne Amadou Ba dafa waroon a démissionné ndax dañ ne ko yaay premier ministre rek nit ñi yanu seeni i bagage di génn dëkk bi di dem te jàppal ne atte boo teg Macky Sall teg ko Amadou Ba ndax diiru mu falu ba léegi mi ngi fi te wax nañ ne date yi nga xam ne tey moom la Sénégal amee ci ay bor dañ ne Amadou Ba moo ñu ko teg ndax Amadou Ba moo fi nekkoon ndomba tànk gu nekk yor na ko fi Amadou Ba di gisaguma lu mu liggéey gisaguma lu mu jëriñ réew mi bureau politique am bureau bureau de vote am fii ci parcelle du ko gagné Sénégal yi xamuñu Amadou Ba donte ñaari mandat nekk ko ci biir dëkk bi. nga toog ba sa ndono jeex. nga ne man maa ngi dem. waaye nag dëkk bi yéen ki leen di donn buñ leen ko miraasoon dama naan Amadou bala nga xam ne tey sëñ Saliou dama naan. miraas nañ dëkk bi ñun ñëpp ñu jël ñu ne leen Amadou Ba moo ñu doon. lii amutoon sax ci jamono yi Mamadou Dia. loolu laa ne sénégalais waru ko xool di ko seetaan. Hmm. loolu tax ma ne la mutuñ jiit ndax xam nga lu tax. Hmm. njiit kenn du ko tànn. Mhm. imam bi waa dëkk bi ñooy dajee ne yaay suñu imam. Mhm. bu yàlla dogalee ne kenn tànn ko dañ ne matul mhm. imam. waaye bu dëkk bi yëpp dajee ne yaa ñu doy. subaa doy nu waaye kenn ko tànn imposé ko nit ñi ne leen ko ànd moom alhamdulilah ko àndut ak moom man nangu li nga yor génne la dëkk bi. kon Macky Sall li ñu bëgg a imposé réew mi dañ ko war a bañ. sëriñ si bañ ko. ndax am na yeneen lu ci laxasul lu xam ne nii mëneesu koo wax. Euh, ñu fàttali ne imam nga ne candidat nga 2024 euh, sa parti bi nan la tudd ak kan mooy sa deuxième yow. fi ñu toll ñu ngi coalition la ñu parce que xam nga. Ah, dëkk bi. Mhm. benn parti mënul gagné réew mi. Mhm, coalition. da ngay gis sax ca 2012 dañ doon wax laa la Macky 2012. waaw coalition nangam. Mhm. réew mi moo toll foo xam ne benn parti mënatu koo gagné ñun suñ coalition mi ngi tudd coalition ànd. tabax sunu réew. mu ay association islamique ay mouvement islamique ay chefs religieux ay professeur ay jàngalekat ay boroomi xam-xam euh, coalition boobu noonu lañ fas yéenee demee ci biir élection bi ndax réew mi dootuñu toog ndax bu ñu sàgganee tey ba ñuy jiitewaat ñu nañu bàyyi xel tey ñu suñu mag ñëpp mere nañ ndax yàq nañ islam bi yàq diine ji su ma ne yàq nañ islam bi ak diine ji mooy xeex gi ñu xeex daara bi ñu fi toogee ba léegi li dugg ci kaso bi ci ay sëriñi daara kenn xamul nu mu toll mm-hmm. ak kàcc yi nga xam ne tey yàgg nañ koo def naan modernisation de daara nga baal ma ci kàddu gi sëñ Saliou mm-hmm. modernisation de daara boo xamante ne bi bañ ko keree ca jam ñaajoo ba léegi mm-hmm. amul benn daara bu ñu dimbale lu dut dañoo bëgg a ay pexe la daan doon ak ay financement yu ñu bëgg a jot ak banque islamique de développement financement dix millions yi nga xam ne dañ koo joxe woon pour mu a dem ci daara yi ba léegi nii daara yi gisuñu dara. 10 millions wala 10 milliards. 10 milliards dama juum gisuñu ci dara. Mm-hmm. loolu moo tax ma ne am na lu mag Sall di organisé neen ko ma ci kii ci suñ daara yi surtout xale yi génnoon sorti woon yi demoon am yëgoo ko. xale yi demoon ci concours yi am na lu mu leen di organisé atal de. <laughs> waaw yooyu li ma ci bëgg a jàpp rek mooy loo ci mën di gis am naxaatee la ne xam nga lu tax damaa am sa ci. Mm-hmm. Euh, keroog footballkat yi bi ñu gagné coupe bi. Hmm. may nañ leen fi ay terrain ci Wakaam boo demee suuf si mii ngi ñu collecté nii. Hmm. ay terrain terrain bu ci nekk mën nga koo jaayee deux cent millions trois cent hmm. millions. yu am na yu mën a jël cinq cent millions. keroog tey ndatte ca Touba. bi ñu ko indee ci moom. def naa xaw ma kii Cheikh Omar Anne la xaw ma. minimum daal la ñu joxe matul cinq millions. mu dul cinq millions moo tax ma ne la. dañuy dañuy bëgg a léegi xam nga jëm ñaaja dafa dajale woon daara yi ne dama dañuy waxtaan ñu càmbar mbirum daara. Mhm. loo doonul dongaam mënoo doon sëriñam keroog laa leen wax ne leen Macky Sall mënu régler problème daara ndax jaarul ci daara xamu ko. mënu mhm. ko buntu ba sax du ko gis ñu dajale ay militants. Mhm. ak ay militantes. gis naa koo xamante nee na ma suñu penc lañ wàcc. dam yekkat yeeg ña doon carte ñëpp lañ dugal ci oto yi indi leen ci Dakar. ba ki Mm. muy wax ci moom ñu ne léegi ñii ñooy daara yi ma ne leen ñii duñ daaray yi bañ ci jugee mm. ma leen dara du ngeen ko gis euh, un mois ci ginnaaw euh, imaam Diop mm-hmm. ca fajaa mm-hmm. danaa ko tudd moo toog ne ma imaam yay ngay ñu mm-hmm. ndax daa bokkoon keroog ca jëm ñaajo ma ne ko du gis dara moo ne ma la nga waxoon lépp am na ay naxee la furaas xëddën maa ngi nuyu imaam Diop ca fajaa yaa ngi tudd kii ñu tëjee boobu yaa ngi doon tudd nu mu tuddati Ablaye Sylla candidat la doon ngeen bokkoon nekk nga ne yéen a faloon Macky mm. lan ngay wax ci candidat am. Euh, Abdoulaye Sylla 2012 mm, ñoo ànd. Mm-hmm. ak Fatima Sylla Serigne Khadim Mbacke Serigne Mamoun Niang mi ngi foofu noonu toog. Mm-hmm. Euh, ak ki nga xamante ni mooy docteur Sylla. Mm-hmm. ak euh, sëñ Mbay Longoor ca Daaru Xudos bari woon nañ matoon nañ ay vingt personnes. ñu ñuy ñoo doon ànd maa daanaka maa nekkoon seen directeur campagne. ñu def tour département Mbacké bi yëpp village par village ba yàlla dogal ñu dem deuxième tour Macky Sall woo ko mu ñëw Dakar bàyyi fa ki nga xam ne mooy Fatima. jamono boobu Moustapha Cissé Lo ak Sadaga eh, seeni financement foofu lañ ko doon jël see eh, ca laa leen gën a miinee sax ñoom Sadaga ak ñooñu eh, ma ci nuyuwaale bu baax kenn muy nga xam ne yàgg nañu fekk muy Serigne Makhtar Dieng. chaque jour daana ñëw fekk ñu ci ñu toog ci salle bi di waxtaan Ablaye Fatima man. ak docteur Sylla ak ñeneen sëñ Maxtaar Jenn mooy moo moo moo moo mën a seede loolu. ba yàlla dogal deuxième tour bi Macky Sall gagné la nga xam ne moom lañ doon wax waa département Mbacké yëpp. ñu bind ko xaatim ko ci këyit jox ko Ablaye. ne ko dëkk sàngam danaa ci seede benn dëkk rek muy Touba Bogo. am nañ problème boo xam ne mooy problème mu yoon. nañ fexe ba bu Macky Sall faloo ñu defar tali bi. bëgg nañ ay école ay ay ay kii. Eh, loo xam ne dañ ko dimbalee waa dëkk ba yu bëree bëri ñu xaatim ko bind ko tegal ko ci taabalu Ablaye mu ne dinaa ko jox Macky Sall eh, ba fii may wax ak yow nii dëkk ba gisaatuñu Ablaye dégguñu ko kon su ma wax ne dama naan ab Ablaye wor na waa Touba Bogo wor na waa département Mbacké yi nga xam ne man maa jiite woon campagne bi wax ak ñëpp waaye la ma waxoon ak ñoom ab Ablaye garanti ko Ablaye Sylla na jàpp ni defu ci dara kon daanaka ñun joxe woon na suñu kàddu ngir moom amoon ci yaakaar nag amul benn dëkk bala benn village boo xamante ni bii xat bu damm wala wala kilo ceeb bàyyi ko na ci ab Ablaye jaar ci suñu loxo mu dem ci ñooñu te pourtant moo nekkoon garantie bi man may wax sëñ Xaadim Mbàkke fekkee ko hmm. sëñ Maamun Ñang ma nga fee toog ak docteur Silla mii di papaam ak Fatima di soxnaam Saaliwu Silla booba xale la hmm. euh, ci kër gi la toog waaye xam na li may wax yàlla dogal na nag wax dëgg yàlla lañ diggee woon lépp dara amu ci hmm. man mi di wax ak yow 2013 ga laa ko gëj a gis kon yéen ñaar a nekkaat ci biir di xëccoo présidentielle bi. waaw moo tax ma ne ah. département wu Mbacké. Mm-hmm. ngeen pare te xam ne dinaa def tournée nationale. Mm-hmm. xamal leen kan mooy Ablaye ndax fa ma jaaroon fépp dama danaa fa jaaraat wax leen ne leen nag. Ablaye ngay ngay ngay ngay contrecarré wala Macky Sall. moom mburoog fëriñ lañ ndax candidat wu Macky Sall la. ndax mm-hmm. Ablaye lépp lu mu yor ci Macky Sall la ko jëlee. léegi nag. bu ñu demee ba deux mille vingt quatre mu ne candidat la. Mm. Eh, ci te dëkk dëkk boobu nga xam ne mooy sa baas. Mm. nga xam ne fala sa waajur di yeewoo. Mm. ña nga àndaloon 2012 ak léegi nga mën a wax ne man 10 ans ngi nii ngi nii gisuma leen dégguma leen kon soo dikkaatee ca dëkk bi ne daa am lu ma bëgg ah loolu amul de. koo tax ma ne la candidat wu Ablaye boobu fii sim bi yaakaar naa ah, mooy numéro 1 Ablaye def na dara ca dëkk ba de tabax barabu sëñ Fallou tabax barabu sëñ Sidi Mokhtar <laughs> fan yi gis naa ko benn jàkka bu mu tabax ndindi mm. ak social yam bu fay def fi ñu toll waaw kon bu boobaa ah. dañuy wax ne yàq jël na gan mm. te defar yi barab mm-hmm. jàppal ne sa digg sa sëriñ la mm-hmm. waaye ci wàllu politique li nga seqoon ak nit ñi mm-hmm. ñu waxaat ak ñoom ba ñu jël seeni carte woteel Macky Sall ngir yow man maa ko mën a seede ne laay defu ci dara te eh, pare wutoon pour delluwaat ci dëkk ba baa mu wax ak ñoom la ñu bindoon teg ko ci taabal ji ba tey ji awuma ci tontu